Euh, je peux avoir une allumette ou... <laughs> non si on aura des allumettes tout de suite. d' accord d' accord de toute façon naa ko taal indil la ko sa. plateau pour mu nekk genre euh, déco et tout tu vas voir. et donc euh, su paree. ce que mhm. tu vas faire mooy euh, gis nga mèche bi moom moo nekk nii. d' accord waaw. Merci moo nekk nii donc il faut faire doucement balaa buy kii. là après il suffira juste de casser l'œuf. nga ko doucement. et voilà on voir.

dama ne xaar ba def bi nga xamante ne je vais euh, remplir. carrément mais si euh, tu veux aussi c'est un style hein, de laisser ça. exactement mooy moo tax ma ne bon est-ce que tu n'as pas remarqué euh, celui que tu as mis dans l'eau oui. Euh, en ce moment commence à avoir une petite couleur. Exactement. Certainement safran bi ñuy utiliser donc ça va donner aussi une autre couleur certainement si on l'allume. Exactement. Donc lii dina baax pour ñuy def. nu mu tuddati ñu les nouveaux mariés là. ah t'as vu donc lii ngay dem di jënd ay kii pour décorer et tout des fois dafa dafay cher. et tout ça donc euh, voilà. nen baa ngi nii sondel laa ko defaree c'est vraiment joli c'est original et euh, moi je trouve que ça fait euh, c'est euh, c'est de la déco mën nga ko utiliser euh, pour def ko sa centre de table et tout mm -hmm. bon je vais essayer de faire rentrer l'œuf mm -hmm. comme ça non non t'inquiète pas mèche baa ngi ci kaw donc ça ça peut rien faire ouais. donc mu ngi nii. ay ay. donc euh, voilà pour le moment ce que ça donne et tout mën nga jël yu bëri def ko ci. Mmh nga teg ko sa centre de table wala sa néeg euh, voilà moi je trouve que c'est vraiment. Euh, joli c'est bien et tout ça le fait quoi. bii moom bii bu fay na de. voilà c'est normal elle est plus lourde exactement bii nii ça flotte bien donc euh, pour que ça flotte donc bu leen ko remplir ba mu fees. def na ko juste rek à moitié exactement pour kii ko bon je vais ressortir l'œuf pour montrer encore une fois. Mmh. donc euh, moo ngi nii j'ai mis du safran. moom moo couleur yi nen bi ci suuf et tout gis ngeen c'est c'est très joli c'est très beau et euh, soo leen bëggee sa mën ngeen utiliser yeneen colorant pour que euh, vert, euh, vert orange vous pouvez dépend. jouer avec les couleurs et tout et voilà ça fait joli d'accord mu ngi nii seen ak benn nen ngeen defar seen bougie décorer seen néeg seen salon et avec rien du tout. il faut pas dire benn nen ñu defar suñu bougie mais benn nen ñu defar suñu omelette. exactement et après ñu utiliser coquille bi pour. Euh, defar li nga xamante ne mooy suñu. Euh, tu as parfaitement raison donc voilà c' euh, joli man j' mm-hmm. franchement. Adja astuce bien elle. donc Adja astuce Adja astuce maintenant. elle est revenue avec en tout cas fabriquer sa propre bougie. Oh, c'est très joli donc pour les nouveaux mariés je vous le conseille vivement. ku mel ni Bakary donc puisque tu as pris note pour l' astuce. tu peux mm-hmm. demander à madame de te faire la même chose. <laughs> et pourquoi pas on est un jour de week-end. bon hein? Ah. veille de week-end la ñu nekk. donc le samedi le mën koo mën a taal ko defar néeg ba mu rafet xam nga rek ah, euh, affaire bu mag quoi. oui merci beaucoup et euh, euh, voilà donc soo leen ko bëggee si vous n'avez pas vraiment suivi. Oui. donc je vous réexplique euh, la procédure qu'il faut il vous faut euh, deux bougies pour un œuf. et du safran pour la couleur. et aussi benn nen ngeen vidé ko ba mu jeex tàkk. Mhm. ngeen chauffé si kii bi sir bi pour mu kii nga jël safran bi sotti ci biir après ngeen jël nen bi couvrir ko ci benn serviette parce que dafay tàng jël ngeen sotti seen sir bi ci biir ngeen xaar mu dugal ko ci réfrigérateur wala su dee yàkkamtiwoo leen aussi ngeen xam refroidir euh, pendant un moment et au résultat ça donne ça c'est très joli et euh, moi je kiffe bien. man moom xam naa bii fan laa koy euh, yóbbu léegi léegi nii. waaw mm-hmm. man moom j'ai une petite idée. Mm-hmm. donc voilà vous pouvez toujours nous écrire ceci du page Facebook slash Good Morning si vous voulez d'autres conseils yeneen astuces qu'importe ak lu mu mënta doon truc et astuce c'est tout en général mode beauté mm-hmm. tendance nettoyage bricolage c'est tout. et tout et tout donc euh, boo leen soxla rek mën ngeen ñu bind et tout je vais je vais vous donner quoi. d'accord inchallah. merci beaucoup on merci. te retrouve demain pour la rubrique euh, trucs et astuces. Mm -hmm. facebook.com slash good morning 2S c'est gentil vous pouvez poster vos commentaires bien sûr pour dire que vous aimez ou pas si elle a réussi ou pas c'est à vous de juger. merci beaucoup on se retrouve demain tout de suite c'est parti pour le marché. je suis Dawa. je suis